ma bàyyi la sénégalais yaa ngi lay seetaan mag ñaa ngi lay seetaan xale yu ndaw ñi góor ñi jigéen ñi ñi nga xamante ni tey bu ñu d'accord ni fauteuil présidentiel bi yow yaa fay toog incha allahu yaa fay toog ma bàyyi la bu fekkee am nga benn message boo leen bëgg a wax rek comme ça ñu jeexal ci loolu. waaw euh, message bi moom lu gàtt lay doon maanaam lu ma bëgg ñu jàpp moom mooy tey euh, nañu jàpp ni élection yi di ñëw. Mhm. février deux mille vingt cinq euh, deux mille vingt quatre dafa nekk ay élections yi nga xam ne dafa nekk benn tournant xam nga politique Sénégal par cycle lay évoluer cycle yi am nañ benn premier cycle bu 30 ans avec les socialistes 12 ans ak libéraux yi ensuite 12 ans ak makisal léegi nañu fexe ba ubbi benn page bu bees bi nga xam ne en tout cas lépp li nga xam ne jooytu nañ ko ci Sénégal ñoom nañu jàpp ni mën nañ ko fajal seen bopp et que maa ngi leen di ñaax ñu dem jëli seen i carte ñu pare pour voter mhm. parce que mieux vaut mhm. nga mobiliser wu benn demi journée fajal sa bopp lépp lu la metti maanaam nga voter radicalement pour le changement mhm. mais également ñu ñëw ubbi passe bu bees que nga toog di xaaraat yeneen cinq di jooy naan dëkk bi méttiwul donc nañu jàpp ni bés boobu seen bés la am nañ possibilité bind benn page bu bés ci histoire au mhm. Sénégal et que fu may tëjee moom mooy dañu jàpp ni politique bu réew baaxee mhm. moo ko baaxal bu réew yàqoo wala bu bone itam moo ko yàq et tey seen responsabilité